bismillahi irrahmani irrahim awnaka yaa muin wa bika nastain wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallam wajcal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida assalaamu aleykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen siyaara di leen ndokkeel ci turu alxaaji Muhammadul Faadilu Buso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mor Soxna Buso sëriñ bi mu ngi jiital ci nuyoo boobu ak siyaara bi ak seex Muhammadul Muntaqa di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko te sàmm ko te aar ko ba naal yi nga xam ne naanal na ko sëriñ Touba ak yim yéenee naalaat yépp mottali yim tàmbali tàmbali yim yéene te matal yépp te lépp ñu ànd ko ak moom te daja ci ak ngërëmu sëriñ bi ñu ngi nuyu Cheikh Mamadou Fadilou Bousso mi nga xam ne moo toog a jataayu sëriñ ma Massamba Kanni di jaarle ci moom nuyoo boobu di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew yépp ci mbakk gi ak ci mbusoobe gi di nuyu soxna yeeg ñépp bàyyiwuñ kenn sëriñ Alaaji Fallu ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo topp sa ginnaaw sëñ Alaaji Fàllu mi ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ak njaboot gi topp ci ginnaawam di sant nag cant goo xam ne dees di feeñal yéene ji rek waaye fa mu àgg ci xol mënee su koo wax mënee su koo jëf lii nga xam ne defal ngeen nu ko rëy na fi ñun lool màgg na fi ñun lool te yëg nañ ko itam bu baax a baax te jàpp nañ ko it bu baax a baax a baax moo tax sax bi muy ñëw délégation bi sañ jiili moom sañ moorom lim na ko léegi waaye yéeneem ëppoon na loolu waaye nag jamono ju xat ji ak jataayu xat yi moo tax rek mu feeñal ji lii rek muy feeñal yéene ji waaye lim ci ëpp lim ci bëgg sax weesu na fii lum ci jëf yéene ji weesu na ko foofu day feeñal yéene ji rek ndax xam ne bis ba bisama ndax sëñ Mor Soxna ak sëñ ma sàmba moom benn rek lañ bisub sëñ Mor Soxna mooy bisub sëñ Masamba bisub sëñ Masamba mooy bisub sëñ Mor Soxna bari na fii ci njaboot gi nga xam ne ñooy taxawu bis bii bu sëñ Mor Soxna amoon bis tey ñoom ñoo koy taxaw lu baree fi ngi fi ñoo xam ne niñ setoo ci sëñ ma sàmba noonu lañ setoo ci sëñ Mor Soxna kon mel na kon genn kër gi la genn njaboot gi la kon lépp rek sotti ci ak def ci rek la moo tax nag mu fonk ko lool fonk lu ko lool itam di sant itam baax a baax ndax lii lépp dundal ak mbokk rekk la te ni ko sëñ Matar waxe léegi rek lii day lu yàgg loo xam ne daa mel ne yéen da na a siwaat way jur ya ndax lu bari ci jataay bi xam nañ diggante njabootuk sëñ ma sàmba ak njabootuk sëñ Mor Soxna ci jaxasoo ci lu baree bari ndax am na leetar boo xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko bindoon boole woon ca sëñ Abdou Assis mbir kilaan moom sëñ Masamba Faati ak sëñ daam Abdourahmane Buso moom sëñ Mor Soxna ak sëñ daam Maram moom sëñ ma Masamba Kanni doo leen yabal fu ñu doon jànge ci xam-xam ci dëkk bu ñuy wax nguy leetar booba ñoom ñett ñoo ko bokkoon ñoom la fa doon yebal ak kam leen boole sëñ ba juuf loolu kon day wane ne kon seenu jaxasoo yàgg na te itam sëñ ndaam itam moom sëñ Mor Soxna bi muy dem jaamal di jàngi ba mu demee fekk na fa sëñ maram booba na fekk na sëñ maram sax daanaka noppi bay waaj ñibbisi waaye bi ñu fa indee bi sëñ daam diggee fekk si ko dafa toogaat diir bu yàgg ngir wétali ko ak dalal ko ak gën koo xamal dëkk ba ak melokaane ak nekkin wa kon loolu day wane kon seenu jaxasoo ñoom ca way jure waaye ba ci ñoom doom yi dundal nañ ko bu baax a baax nga jëlaat soxna Roqaye so di doomi sëñ ma Masamba ni sëñ Ndaam doomi sëñ ma soxna moo ko yoroon kon jaxasoo gi yàgg na lool ba ci jamono yi ñu nekk ba tey loolu mi ngi am sëti sëñ Masamba Kan yi nga ca kër biir sëñ sëti sëñ Mor Soxna Bousso sëti sëñ Mor Soxna Bousso ba tey ñuy biir kër sëñ Masamba Kan yi kon lii dundal ak bokk la ak dëgëral ko ngir wane ne la fi mag ñi bàyyi woon yéen yéen koy sàmm te yéen koy dundal te la suñ borom wax ci dundal ak bokk ak rafetal ko loolu xam ngeen ko kon yéen koy def bu baax a baax kon nag na nga xam ne daal sëñ Alaaji Fàllu Buso ak mboolem ñi mu àndal seen xol sedd na guyy ci jataay bi seen xol sedd na guy ci bis bi ak noseen yi lépp daal lépp jaar na yoon ñi ngi sant sant goo xam ne daal dañ leen koy seeral rek tey ñaan nag jaxasoo googu nga xam ne moo amoon ca maam ya amaat ci bàyyi ba agsibaat ci yéen ngeen ñaanal ba tey sedd yi di ñëwaat ñun gone yi nga xam ne ñoo ci toppaat seen ginnaaw mën a téyewaat loolu te dundal ko ba mën koo joxaat suñuy njaboot ñu itam ndax loolu rek mooy yoon wi te loolu moo koy dundal te loolu rek mooy dëggal ñaan nga sëriñ Tuubaa ñaanoon ne wajal jamiha ixwati wa nasabi fi rahmatin yowma stidaadi nasabi wajal lana hunna wa hanna azza zaqitan tabarlan fanuxsa ba ca wajal sàkk na yu waxel kabir ja wajal kabir na yu saxil noonu ba bay de jeex kon day mel ne jataay bi moom wane na loola bu baax a baax a baax kon dëggal ngeen ñaan googu yën kon nag ñeen ngeen ñaanal ñun ñi toppaat seen ginnaaw ñu wéyal ñaan googu te dëggal ko bu baax a baax ba nga xam ne ñaan duñ mu jëm sa poussé ba mu réer bu mu agsi bu mu ñu dal mukk suñu xol sedd na guyu xam naa jataay bi gudd na te yàgg na te kàddu yi fi jiitu dafa mat sëkk daanaka dees yi mën a dool yi amaatut dañuy santaat bu baax a baax rek te ni sëñ waxtaan bi sëñ aboo doon waxtaan dafa mel ni sëñ mataan moom itam indi na ci loo xam ne nii dundu sëñ Mor Soxna te loolu muy dunduk sëñ ba sàmm mooy dunduk mag ñu ñëpp foofu lañ nekkoon kon nag ñun tam yàlla nañ suñ boom tàbbal foofee te loolu mooy li nga xam ne rek moom lañ bëggoon ci noonu moo tax it yéen loolu ngeen bëgg ci noonu moo waral ngeen indi jotaay bii ak fàttali yi kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaanal nga gën fee yàgg lool te yokkuk wér ba naal yi nga naanal sa maam ànd ko ak njaboot gi ngeen àggale yépp te lépp dëppoo ak bëgg-bëggam ngeen tase ci ak ngërëm barkeb Seexul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dafa am nag ay bayit yoo xam ne lenn ci njabootuk sëriñ Mor Soxna gi sëñ Seexuna Buso moo ko def